mbokki senegal asalaamualeykum wa rahmatulah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di dellu si waxtaan ak yéen ci li nga xam ne nattu la gu wàcc ci àdduna gi yépp muy jàngoro ji ñu tuddee coronavirus di jàngoro joo xam ne dañ koy delloo ci nattu yi nga xam ne léeg du ñàkk muy wàcc ci àdduna te du bàyyi kenn. ñépp mën na leen dal amul ci diine gi laa bokk amul ci continent bi laa bokk amul ci xeet gi laa bokk amul ci ras gi laa bokk amul kenn koo xam ne mën nga cee mucc ñu nemmeeku nag ni jàngoro ju wàcc la doore woon fële ci Chine waaye law na ci àdduna ba amul réew ci àdduna amul continent ci àdduna en tout cas boo xam ne tey jàngoro gi yeggu fa ñu gis ni feegar jàngoro ju mat a bàyyi xel la lu sérieux la loo xam ne du lu ñu war a caaxaane du lu ñu war a jàppee ay waxi tubaab ay waxi nasaraan walla ñu xalaat ni am na leneen loolu ci suuf lu mel ni ay complot nun sénégalais dañoo tàmm di neenal yu mel nii dañoo tàmm suy amee ñu jàpp ni mbir la moo xam ne mën nañ cee mucc ñeneen ñi rek la war a dal bëri na lu ñu ciy wax loo xam ne méngoowul ak ñi seen xam-xam màcc ci loolu méngoowul ak li ñuy wax vérité scientifique mooy loo xam ne xam-xam moo ko indi mooy nee nañu du jàpp nit ku ñuul moo ne fi mu ne nii egsi na ci dëkku nit ñu ñuul ñi fu mel ni Sénégal gi ba jàpp fi ay nit nee nañu du rey nit ku ñuul kooku it ay wax la yoo xam ne teguwul ci science ñu jàpp ni nag mbir yu mel nii bu amee buñ ci tollee dañuy seet ñi nga xam ne seen xam-xam seen jaar-jaar ak seen àdduna yépp ci lii la ñu may leen nopp déglu leen te fuñ ñu tegloo suñu tànk ñu teg ko foofu loolu rek moo ñu mun a muccal mbir mi nag yegsi na senegal waaye balaa may wax Sénégal damay wax ni man ci sama turu bopp ak sama turu ñi ma àndal ñépp ci wàllu politique ñoo ngi massawu ñi mu dal ñépp ci àdduna di manifester it suñu solidarité ci suñu mbokk sénégalais yi suñu compatriotes yi nga xam ne ñoo ngi ci ay dëkk yoo xam ne mbir mi dafa egg ci niveau bu ñuy wax pandémie mooy dootul lu dal ay benn benn waaye dafa law ba doon loo xam ne dafa tasaaroo fépp gis nañ coono gi ngeen di dund ñi nekk itali ñi nekk as Espagne démb ñi nekk ñi nekk Chine ñu ngi leen di massaw di leen manifester suñu solidarité suñ ci mënoon lu ëpp lool it dinañ ko def waaye ñu ngi leen di masaw di ñaan yàlla mu teggil leen nattu bi teggil ko mbooleem seen àdduna mbir mi dugg si na suñu réew fii biir senegal ma dellu si di waxaat di baamu ni buñ ko neenal du mbirum caaxaan ndax dafa di jàngoro joo xam ne naam li muy reye bëriwul par rapport ak li ñu mën a jàpp ci li ñu wax nee nañu fukk yoo jël euh, yu mu jàpp euh, wala euh, téeméer boo jël ci ñi mu jàpp diggante ñett ak ñeent ñoo ci mun a dee ñoo ci mun a ñàkk seen bakkan waaye ci kaw ñu am jumtukaay yi ñu war a am ba war leen mun a teel a gis teel leen faj ci anam googu lañ naan mbir mi mun na baña a e, rey ñu bari waaye su loolu amul mun na ëpp loolu muy jàngoro joo xam ne spécialiste yi ne nañu wàllaateem gaaw na yomb na ndax mun na jóge ci ñaar ñu jàkkaarloo di wax muy luy jaar ci jaww ji ci ngelaw gi mun na jóge ci tegante loxo saafante mun na jóge ci sax buntu buntu néeg boo ubbi loke bi nga bàyyi ko fa mu bu def fa ñetti waxtu wala lu ko ëpp nit bu ñëw jàpp ko mu mu wàll la kon loolu musiba la buñ ko xeeb te nañu teg nañu topp tegtalu ñi nga xam ne seen xam-xam ci loolu la màcc mooy personnel médical bi ak paramédical bi ma leen di rendre hommage personnel médical ak paramédical boobu gàcce ngàllaama jàmbaar lañu ñu ngi liggéey ci anam yoo xam ne li ñu waroon ci am jum ci am ci jumtuwaay amuñu ko ñoom ñooy ñi gën a exposé ndax ñu ngi jël ñu ngi recevoir ay malaat ci condition yoo xam ne ñoom kiiraay gi ñu waroon am sax amuñu ko kon ñu leen di delloo njukkal di leen wax jaajëf. di leen gërëm ci turu askanu Sénégal yépp di wax nag ni bu loolu weesoo mbir mu mel nii bu amee dafa am lu am solo loo xam ne lépp ci loolu lay tënku su ma koy wax ci tubaab mooy notion de responsabilité responsabilité kenn ku ne ci ñun en tant que citoyen responsabilité kenn ku nekk ci ñun en tant que kuréel waaye responsabilité principalement ñi nga xam ne ñoom la ñu jiital jël suñuy alal ak suñuy moyen ak lépp teg seen loxo muy ñi nga xam ne mooy état bi ñu rafetlu nag bi mbir mi amee ci njëlbeen ba jéego yi nga xam ne état bi defoon na ko ci ndax yéen a ngi fàttaliku bi coow li ne tëll ne jonn ñëpp dañ ne nañu indi nañu rapatrier suñu mbokk yi nekk Chine dëkk bu ñuy wax Wuhan ñu rafetlu état bi ci jamono ju boobu dafa ne woon du leen rapatrier parce que yorul dispositif bu mu leen war a mën a rapatrier loolu mooy woon taxawaay bi waroon am ndax yu bi mel nii bu amee na ñuy bàyyi sentiment yi de côté ñu jiital raison ak di déglu spécialistes yi ba ca diine gi ñu gëm li ëpp ci ñun bokk di jullit kii nga xam ne moom la yàlla yónni woon ci ñun dafa wàcc ci xaddis bu amul benn benn benn werante ni lii di épidémie fu mu am nañu fexe ba ñu jëmale ko foofu ku fa ku mu fa fekkoon bul génn foofu su dee ci kër la bul génn ci kër gi bu dee dëkk la bul génn ci dëkk ba waaye ku mu fa fekkuloon it bul dem duggi foofu ba di ko fa jëlee di ko yóbbu feneen kon loolu lu ñuy rafetlu woon la mën a exiger ci état bi mooy munu leen andi ndax su leen andi woon tey war nañoo andi ay milliers suñu compatriotes yu nekk itali wala yu nekk Espagne wala yu nekk France waaye lenn moom mën nañ ko xaaree ci état bi mooy. na leen taxawu foofu ñu nekk nemmeeku ba xam ci yan anam lañ fa nekkee ku ci soxla ndimbal ñu indi la ndimbal nga mu mat sëkk loolu am nañu droit am nañu sañ-sañu exiger ko ci état bi waaye bu weesoo loolu ñu gis ni nag leneen la ca tegu yépp am na légèreté bu bëri boo xam ne état bi ni mu waroon gere affaire bi gérer wu ko noonu ngeen jégal ma ci ne ma ko waxee parce que it ñun sénégalais. peuple émotion lañu bu mbir amee dañuy jiital émission émotion trop ba tax ku wax safaan bu li ñu li ñu bëgg a dégg rek ñun ñu jàpp ni dafay critiquer wala dafay def yu mel noonu waaye lépp loo xam ne lu war a mun a gën a jàppale nit ñi ci ñu fagaru ci lii dañ koy wax donte nag àndul ak jëfa jëfinu état dañ ko war a wax parce que loolu lañ mooy suñu gis-gis ñun ci solidarité ba tax ñiy fàttali Sénégalais yi ni xarnu bii ñu ne. siècle bi ñu ne siècle virus la bu ñu paree rek beneen ñëw munoo toog ñaari at te duñ la ne benn virus bu bees feeñ ci benn continent bu bokkal ak ba ca des mën nañ ci limal ci yooyu dégg ngeen fi virus Ebola dégg ngeen fi H5N1 bi dégg ngeen fi virus Marburg bi dégg ngeen fi virusu Lassa dégg ngeen fi virus bi ñuy tuddee Crimée et Congo dégg ngeen fi lu ñuy wax virusu dengue dégg ngeen les virus hépatiques muy hépatique A ba E nga xam ne moom it li muy rey bëri na dégg ngeen fi virus aviaire nga xam ne da doon jóge ci euh, ganaar yooyu ñu doon yar dégg ngeen fi lu ñuy wax SRAS ñu delluwaat dégg virus bu jaaxal ñépp muy sida nga xam ne ba tey jii kenn amu ci pexe dégg ngeen fi li ñuy wax les fièvres hémorragiques nga xam ne bëri na ay façon lu mel ni chikungunya ak yeneen ak yeneen tey dégg nañ fi virus bu ñuy wax corona ñu koy wax Covid 19. nañu xam ni siècle bii man de waxtaan naa ceeg boroom xam-xam yu bëree bëri bëri waxtaan naa ceeg médecin yi wax naa ñaan ceeg ay virologue ñëpp dëppoo nañ ni siècle bi siècle virus la. ñi gën a ñaaw njot dem nañ ba jàpp ni sax léeg-léeg ay nit a koy fabriqué lii pour def koy arme biologique lii pour leneen ak leneen ak leneen kon as réew mu nekk war na fexe ba jël ay matuwaay pour. mun a dékku loolu waaye suñu toogee ba tey jii Sénégal amuñu benn centre virologique Sénégal vingt-et-unième siècle bi amul benn centre mooy hôpital boo xam ne dañ ko jagleel loolu ba su lii amee ñu ñu mun a recevoir ay nit amul Sénégal ñoo ngi jël ay centaines de milliards cent cinquante milliards pour tabax ay stade te jamono jooju investissement bu ñu waroon def ci li nga xam ne mooy sooy bakkanu askan wi defuñu ko tey jii fa ñu dem yóbbu fa ay malaat du centre virologique amul matuwaay pour mun a accueillir malade yi tey huit malade lañu isole isolé mu am ñeent yoo xam ne ñu ngi ci biti mënuñu leen isolé yeneen malade yi nga xam ne feeñ na Touba dañ leen ne nañu toog foofu nañu toog Touba te amuñu matuwaay yu ñu leen mën a jëlee en charge Touba politique bu bees bi ñu andi mooy ku ñu gis mbir mi ci moom rek na toog këram parce que amuñu fu ñu ko mën a téye ci hôpital yi te ragal nañu mu génn tasaare ko loolu suñu càggante la nañ ciy tiire ay leçons di jël as alalu askan wi di ko investir fi ñu ko war a investir mooy lu mel ni santé lu mel ni éducation parce que loolu moo yor kaaraange nit ñi ñu teg ci nag nii bu mbir mi amee waruñu woon xaar ba mu dugg ci Sénégal nguur gi bi mbir mi amee la waroon dem seeti les leaders de conscience les leaders d'opinion ñi nga xam ne ay nit déggal nañ leen di leen topp ñu dem seeti leen ànd ak techniciens yi ànd ak ñi xam mbir mi wéet ak ñoom tëjoog ñoom sensibiliser leen xam loo leen xamal leen lu xew ak lan mooy mbir mi lan mooy feebar bi waroon nañ dem gisi xalif généraux yi waroon nañ dem gisi église bi waroon nañ dem gisi euh, euh, acteurs culturels yi ñépp ñi nga xam ne bu ñu waxee ni ay nit ñu bari déglu leen lañu waroon def loolu par anticipation daa di concerté wu ak ñooñu loolu suñ ko defoon tey peut-être wax jii yépp am ak jaxasoo bu ci am ba déclaration yi xaw a jaar nii jaar na loolu du doon am kon concertation boobu waruñu woon xaar bi ñu nee affaire bi feeñ na Chine lañ ko waroon def gannaaw loolu nag concertation dafa am un temps sensibilisation dafa am un temps waaye bu yooyu yépp weesoo décision dafa am temps ndax kaaraange sénégalais yi ak bépp xeetu kaaraange muy sécurité bi muy salibirité bi muy kaaraange ci mbirum santé loolu responsabilité état la du responsabilité keneen ku dul état état su loolu jotee warul faible warul yox yox yi dafa war a seet dafa war a concerter ñépp nag déglu ñépp waaye gannaaw bi mu dégloo dafa war a seet li gën ci décision mu jël ko avec tout la rigueur qu'il parce que prérogative régalienne la noonu sax la ko diina santaane ndax boo demee ci euh, sor euh, sorsu Imran yonent bi yàlla yónni ci ñun yàlla daf ko ne wa shaa'iru am um bil bu mbir jotee na nga concerté wu ak nit ñi waaye nag boo concerté wu ba pare fa azamta fa tawakkal alallaahi soo concerté woog nit ñi ba pare diisoog ñoom déglu leen na nga jël décision bi nga jàpp ni bii mooy mu gën bu gën li ci des ñu dénk ñu doog koo dénk yàlla loolu la état du Sénégal deful di xaar yeneen autorité war a jël responsabilité ñoom ñooy jël décision yi ñu jàpp ni loolu bokk na ci càggante goo xam ne tardel na réaction yi ñu waroon am te peut-être buñ ko defoon ba tey jii dina tane wala peut mbir mi du fi si ñuy wax nag ni dégg nañu discours euh, état bi dégg nañu mesures yu ñu jël ñu jàpp ni lu baax la lool te di ci sonn Sénégalais yépp di soññ Sénégalais yépp ñu topp lii nga xam ne mooy ay recommandation yu ñu joxe di topp li nga xam ne mooy li organisation mondiale de la santé ak li nga xam ne ñii am xam-xam. bu màcc ci loolu di médecin yi ak personnel médical ak médical bi li ñu wax ni lii lay moo war a doon comportement bi ñu ngi ñaan sénégalais yi ñu am citoyenneté ak patriotisme ba ñun ñëpp ñu tënku ci loolu ndax mbir mi kenn muccu ci du borom alal du ko ñàkk alal gis nañu ay borom alal ci réewu tugal yi ay ministre ay soxnaw premier ministre ay footballeur yoo xam ne ay milliards la ñu am tey jàngoro ji jàpp na leen kon kenn muccu ci kon ñun patriotisme la bëgg sa réew la bëgg sa bopp la nañu tënku ci lii nga xam ne mooy li boroom xam-xam yi santaane waaye it jàpp nañ ni état bi mesure yi mu jël xaw naa néew par rapport ak li ñu waroon jël ba tax ñu ngi woo état bi ñu ngi lancé un appel solennel état bi mooy réew yi nga xam ne mbir mi egg na fa niveau pandémie mooy dootul épidemi dootul ay benn cas benn kaa tey soo jëlee Sénégal dañu naan épidémie la waaye boo demoon itali wala nga dem Espagne wala France sax mi mu door mi mu commencé egg niveau boobu pandémie la réew yooyu yëpp nañu jël suñu responsabilité ne tëj nañu suñu frontière ak ñoom avion wala gaal wala oto dootul jóge foofu dugg Sénégal et euh, euh, avion wala gaal wala auto dootul jóge Sénégal dem foofu ñoom ñooñu nga xam ne rek jël nañu seeni matuwaay di xeex mbir mi ba yàlla xëpp ci ndox ba mbir mi wàññeeku bu baax a baax ñu ñu doog ubbi frontières yi yeneen réew yi nga xam ne eggagul foofu nañu renforcer contrôle yi ci frontières yi te jox suñu personnel médical bi nga xam ne gàcce ngàllaama jàmbaar lañu ñu yokk leen ci ay jumtukaay ak ay moyen ba ñu mun a def liggéey bi ci contrôle surtout ci niveau frontières yi loolu la ñu jàpp ni lu mënul ñàkk la ci suñu buggee mucc ak musal waa réew mi ci jàngoro ju bon ji ñoo ngi ñaan yàlla moom mi nga xam ne moom rek a mën moom mi nga xam ne moom rek a mën ndax keneen ku dul moom day jaarale ci ci yow rek as tuuti ci xam-xam ak ci ay moyens ñu ngi ñaan yàlla mu musal ñun waa senegal musal ñu ci feebar bi ak bépp jàngoro musal ñu ci bépp musiba waaye ñu ngi ñaan yàlla mu musal àdduna bi yépp ci bépp musiba rawatina jàngoro ji nga xam ne moom la ñu tuddee euh, Covid 19 wala corona ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal di leen dellu yokk recommandation yi nga xam ne ñii nga xam ne ñoom ñoo xam mbir mi joxe nañ ko ñun ñëpp nañ ci tënku rawatina comme ñun Sénégal joxante loxo dafa bokk suñu aada. léeg-léeg nit talal loxo nga xaw koo kii sax mu jàpp ni danga ko koo bëgg a ñàkk kersa nañu topp recommandation yooyu wàññiwul kenn dara raxasu bi wàññi joxante loxo bi wàññi rassemblement yi di jël ay mi précaution yoo xam ne euh, ci distance yi ñu war a am diggante nit ñi nañ ci góor góorlu bu baax ñu ngi leen gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.